ak jàmm Walf Quotidien xëy am taxaw seetlu ci njiitu réew mi euh, Macky Sall mi ñu ne mu ngi ci guddi gu bër setagul yenn cabinet ci wàllu médiation jëm ci tamit médiatisation mu ñeel euh, bitim réew euh, gannaaw émeute yi fi amoon fitna yi fi amoon ci Ndakaaru ak feneen ak feneen presse étrangère beeg nañ ca waxee yenn cabinet doon lu doy waar New York Times am ci taxaw seetlu ci li fi jotoon xew ak bakkan yi fi jot rot amal ci gëstu bu yaatu yenn cabinet yàggul dara journal nervi yi euh, TV5 itamit amal gëstu gamu amal fii ci euh, réew mu Sénégal ba tax na ci jamono ji njiitu réew Macky Sall euh, deram ya tàmbale na yàqu ca bitim réew média ya ne ca bitim réew gëstu gañu def ci Sénégal mi ñu jàppe woon ne réewum jàmm la te daanaka Sénégal tabbi na ci wàllu fitna Ibrahima baaxum di taskatu xibaar jàpp ne yooyu les médias te féete ca bitim réew ay homme d'affaires ñoo leen jiite te ñooñee daanaka bugguñu seen mbir salfaño ba tax na bu ñu ne daanaka doonatoo waaja ñu fexe ba xalal yoon keneen Ibrahima Bakhoum noonee la waxee jàpp ne ci jamono ji njiitu réew mi Macky Sall la mu amoon ca bitim réew tàmbale na ko ñàkk mu ngi ci yéen a di Walf Quotidien yéen a di L'Observateur am taxaw seetlu ci gisee gañu lam-lame diggante njiitu réew Macky Sall ak Ousmane Sonko médiation gañu ne war na caa am yéen a ne li am ba des mooy mun naa doon lu yomb mun naa doon lu jafe lool Alioune Tine njiital Africa Jom Sant jàpp ko euh, njiitu réew mi euh, Macky Sall lu war a mun a nekk la waaye nag euh, gisewu ni docteur Alassane ndaw jàpp ne ci jamono ji nga xamante ne ci la Sénégal toll ci jafe-jafe fitna dina doon lu jafe lool docteur Alassane Ndao teg ca ne dialogue bi ñuy waxtaanee ci jamono ji ci ñaari point rek la waroon a tënku troisième mandat ak fexe ba xoolaat candidature Ousmane Sonko Babacar Dione di analyste politique jànge ci ne médiation dina jafe waxtaan ci diggante njiitu réew ak Ousmane Sonko munta nekk ci waxtu wi la ndax waxtu wee ko laajul ñu ngi ci wàllub yoon eh, te tamit eh, munuñoo salfaañe yoon di eh, waxtaane leneen ak leneen yéen a kii di xëy taxaw ci mbirum yoon ak daan yi ñu teg ci ndoddu Ousmane Sonko ganaaw ci wàllu suite boote maître du Ndoye joxe na ci xalaatam xam ne ne njiitu Macky Sall bu buggee mbir yi yem fii dina fi yem. Eh, sàkku na sax ci njiitu réew Sall mun na woote eh, daar daar assemblée nationale woo leen ci urgence eh, su ko defee mun na faa jaare supprimer maanaam dakkal li ñu duppe corruption à la jeunesse gu ñu toppee Ousmane Sonko ba daan ko ca lu tollook ñaari atu kaso maître Doudou Ndoye ne corruption à la jeunesse sax moom la ñu xamul ba ko ñaareel njiitu réew mun na li nga xam ne corruption à la jeunesse yene cabinet moom maître Doudou Ndoye xam le ne Ousmane Sonko ci jamono ji sax Euh, mun nañ koo jégal bu neexee njiitu réew Macky Sall mu gracier ko ci jamono ji euh, bu ñu euh, sukkandikoo ci avocat bi di maître Doudou Ndoye mu ñu koy dëgtal ci xëtam bu njëkk ci 24 heures ci li nga xamante ne moom la ñu toppee Ousmane Sonko ba daan ko ca yéen kabi di réew mi quotidien moom jiital Pastef Ousmane Sonko xalaatam bokk na ci weeru juin 2021 jotoon na junju ne njiitu réew Macky Sall la mu bëgg mooy salfaañe réew mi pour mun a dàq élection présidentielle yu deux mille vingt quatre Ousmane Sonko gisoon ne eh, buñ ci eh, taxawul eh, moom njiitu réew Macky Sall jàq dàq yi ci la jëm te loolee du ngénneel deux mille vingt quatre dañ cee war a sóobu ci wote te njiitu réew war ca bokk yéen cabinet bokk na ci Ousmane Sonko këram gamu ne ca cité kër góor gi. Eh, jafe na lool moo mun faa génn doxi soxlam ba tax na eh, ci eh, njeextalu semaine gi maanaam weekend de feu goo xamante ne Dakar mun na koo dund ñooñu am fas yéene dem ak ji këram ngir Ousmane ko mun a doxi soxlam am ñu jóg itamit ngir lu euh, signal Walf euh, TV ma ñu coupé ba ba léegi yenn kaabi di libération ne bari na ci ay jegeñaale Ousmane Sonko teg nañ leen loxo Cheikh Diouf bu Pastef ca ginnaaw raay euh, teg nañ ko loxo ci jamono ji section sûreté urbaine ma ngay teg loxo ñu bari ci ay jegeñaale Ousmane Sonko amatuñu afia yenn kaabi di l'info ne lu aju ci yeewi askan wi ña ngay jébaane njiitu réew Macky Sall ca kanamu ONU gis ne réewum Sénégal li fi xew du démocratie jaay doole la ak itamit fitna ak xoron xorñoñal ba ci tëj kaso ñoo xamante ne defuñu dara doon lu métti lool Déthié Fall ak ay naataangoom yéen kabi di euh, Sud Quotidien ne lu aju ci réforme jëm ci wàllu parrainage citoyen citoyen faw ñu xoolaat ko ci jamono ji ndax loole bokk na ci dialogue politique goo xamante ne nas nañ ko poñ googee daal way politique yi daañ ci waxtaan ngir xool wàllu parrainage bi ndax coppite dina ci amam déet yéen kabi di Direct News ne li am ba des mooy yeewi askan wi génne nañu Khalifa Sall daanaka ci euh, yeewi askan wi moom euh, njiital taxawu Sénégal euh, gannaaw bu mu taxawee dem wuy ji njiitu réew Macky Sall ngir mun a waxtaan ak moom loole nag doon lu metti lool ay jege ñaale Ousmane Sonko ci googule coalition yeewi askan wi l'évidence jàpp ne dialogue gañu amal ca ba ak dialogue goo xamante ne ñu ngi koy amalee ci beneen anam tax na Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany ñoom ñaar ñi le daal askan wi mun nañ leen a wóolu ndax seen doxalin mu ngi ci l'évidence yéen a le quotidien xëy ñu université Cheikh Anta Diop mi jota salfañu fan yi ñu weesu gannaaw fitna yi fi woon yéen cabinet archive yañ fa doon joytu ne dañ leen a yàq taal leen jëppet archive yooyee daanaka dañ ko dugaloon ci xarale yu bees yi maanaam numérisé ba tax na lu bari ci archive ya jot nañ ko ca sowe yéen a bi di Le Soleil ne nees mun a def bu sowe eh, ñaari réew yi le Ukraine ak Russie eh, dëkkee di xeexoo ba ba léegi ba tax na mission goo xamante ne eh, dañ ko amal foofee ca Ukraine jàpp Russie njiitu réew Macky Sall fas yéene ca béy waaram ci tànk jàmm yam fa doxi ji yéen a bi di Tribune ne Sénégal jooy na wet rawatina kuréelu syndicat yi ndax ñàkk nañu kàddu bu mag euh, di euh, Sidiya Ndiaye njiital FGTS yéen cabinet démb la génn àddina liggéey lu yaatu nag yàgg xeexal euh, liggéeykat yi mu ngi ci yéen kabi di Turbine yéen kabi di stade xëy di ñu dégtal wàllu match gi war a dox ci diggante Sénégal ak Benin laaj dal di samp ci ana ban milieu lañu ñu fas yéene tënku Pape Gueye Kouyaté Nampalis wala Gana yéen kabi di Walf Quotidien ba léegi askan waa ngi wéy di safo groupe Walfadjri gannaaw bu ñu coupé signal bi bi kii di Serigne Sidi Abdoul Ahad Mbacké jukki na démb lu tolloog benn million ngir jàppale ko groupe Walfadjri euh, Déthié Fall yi tamit di candidat ci élection présidentielle yu 2024 mu ngi woon ci makkanu Walfadjri exemplaire bu Walfadjri bu njëkk ci atum 2000 ci atum 1984 euh, Déthié Fall jënd na ci lu bari lu tolloog juróomi téeméeri exemplaire euh, moom la jënd moom Déthié Fall xam le ne Walfadjri ci jamono ji bokk na ci li tabax démocratie bu Sénégal yemoo fu ñu jeexale tënk yi ci yéenekaay yi daañ ci dikkat euh, Seydina Omar Ba ñu ngi lay euh, nuyu. abonné si ci suñu chaîne YouTube ngir door su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew.